mbokk yi arbitre bi ngi sifflé dox ci wàllu final bi finaal poids léger bi dox ci diggante Ibrahima Thioune ak Eumeu bu Badiana ndeysaan ñoom ñaara ngi noonu mooy Eumeu bu Badiana la tuddee boppam loolu mooy man maay Eumeu Sène ñu ne ko foo dëkk mu ne Badiana mu boole tur bi boo ko déggee rek xam ni joolaa la macha allah arbitre bi na mbokk yi poids léger bi mu ngi noonu jaana Ouma bu Badiana Ouma bu Badiana ndeysaan Ibrahima Thioune daw na jëli ko Ibrahima Thioune Ouma Ibrahima Thioune Ouma bu Badiana Ibrahima Thioune Ouma bu Badiana ndeysaan ñu ngi noonu Ibrahima Cuun ëmma bu bajaana na ngay mu Ibrahima Cuun léegi moo daan ngel jonn numéro 2 bajaana moo daan ngel jonn Ibrahima Cuun moo daan sànq Ibrahima Fay ñu ngi noonu ñoom ñaar daw na jëli ko. Ndaysaan ëmb ndaanaan la. Ndaysaan Ibrahima Thioune ak ëmb bu Badiana. ña ci compétition bi. ëmb bu ak Ibrahima Thioune. ñoom ñaar a ngi noonu Amadou Badiana ak Ibrahima Thioune ndeysaan ñu noonu final la nag mënut a yomb daw ko mbot na ko ak Amma bu bejaana jàppante nañ daw na sol ko daw na sol ko daw ko Ibrahima Thioune tegal na ko seize Ama na Ama ak Ibrahima Thioune Ama na ko seize génne na ko Amadou gis waat na Ibrahima Thioune Ama bu Badiana Ibrahima Thioune Ama bu Badiana Ama ndeysaan ak Ibrahima Thioune ñu ngi noonu ñoom bu Badiane ak Ibrahima Thioune ndeysaan ñu noonu Ibrahima Thioune daw na jël na tànk bi njëtt ko ci suuf yegg nañ suuf yegg nañ suuf mbot na ko Ibrahima mbot na ko mu ngi koy jéem a forcé an mbot wóor ndomba jege na fi Ibrahima Thioune am ma ña ngay bëre bëre suuf mbot na ko bañ na door na épaule bi daan na ko épaule bi laal na suuf épaule bi laal na suuf daan na ko laal suuf épaule bi laal na suuf épaule bi laal na suuf Wow.